ginnaaw bi ñu nuyoo umma islam bi yëpp di ziyaara maam Serigne Hassan Seck xalifa généralu Ceneba ak njaboot gi nga xam ni da koy jàppale ci liggéey bi yëpp moo xam imaam yi la yi moo xam muxaddam yi la moo xam taalibe yi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi ak taalibe yi dëkkee ci gox yi fasante ko yi yëpp leen di ziyaara bu baax fii ci Ceneba di leen jox seen wàccuwaay ñoom ñëpp leen ziyaara xanaa rek di ubbil bay Serigne Diop mi nga xam ni mooy président ahlu Cheikhu Thiénaba mi nga xam ni moo jiite liggéey bu rëy bii ci suñu ginnaaw di raw maam Ahmadou Ndak Seck bi nga xam ni biñ ko tàmbalee moo nekk ca bopp ba ànd ko ahlu eh, ànd ko ahlu Cheikhu Thiénaba gépp ca jamonoy Baye Cheikh Ahmed Tidiane ca ndigalam mu gunge ci ay ñaan ba ci jamonoy Baye Abdourahim mu gunge ñu ci ay ñaan ba ci Baye Serigne Hassan Seck lii di muuram ak wërsëgam incha arbunallahu ajuma ak jàmm ñu war ko inaugurer jox ko caabi ji fan fii ci penc mi ci ginnaaw ci kanamu jumaa ji kon nag bu incha allah du ñu def lu dul jox Baye Serigne Diop mu wax naka la programme boobu di demee ban heure lay tàmbali ak naka la ko ëllu Cheikhou ba bëggee ak taalibe yi nga xam ni ñu ngi dëkk ci gox yi nga xam ni tabaarakallahu mu ngi fasante ci réew mi bari fa ay taalibe Thiénaba yoo xam ni yaakaaroon lu dul kër gi te ñoom lañ àndaloon ak liggéey bi rawatina waa biti réew yi ñi nekk Europe ak Afrique. Baye Serigne Diop woo leen ci ligi ci ci ci immigration bi tabarakallahu loolu rek moo doonoon kaddu yi Haj Mar ñu jox Baye Serigne Diop mu daal di doxal li ci des incha allah. bismillahi arrahmani irrahim subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki jullit ñi mbokki réew mi mbokki seen bitim réew seen mbokk baay Serigne Diop moo leen di nuyu à travers Shams TV ñoo ngi nuyu Baye Serigne Xasan Seck ni ko Serigne Baye Jibrilu nuyoo nuyu kilifa xadara bi nga xam ni ñoom ñëpp njabootu Cheikhu Canaba ñu ngi leen di nuyu alhamdulilahi rabbil alamin la ñuy wax ginnaaw bi nga xamee ni yàlla dimbali ñu tàmbali woon ci atum 2017 2018 liggéey boo xam ni ci ndigalu Baye Cheikh Amadou Tidiane juróom-ñaareelu xarifu maam Amary Ndak moo ñu ko joxoon muy njaboot gi nga xam ne dañoo taxaw rek ngir yëkkati seen liggéey maam waaye ngir yeesalaat tabaarakallaahu lenn ci biir taxawaayu xadara bi loolu nag bokkoon na ci li ñu jiital mooy jëmm ju tedd ji nga xam ne moo ñu liggéeyal suñu lépp di suñu wasila di Seydi Mujj moom Amary Ndak Seck tabaarakallaahu barabam bii nga xam ne mooy tërluwaayam ñu war koo yeesal a bañ ci jubloo baay Cheikh Ahmed Tidiane joxe ndigal lañu ci yàlla dimbalee mooy projet bi dañ ko awale ca yoon wa mu war a aw ñu jaarale ko ci plan architectural bu jéggi dayoo bu dëppook jamono waaye tamit plan BA boo xam ni dem nañ ba estimer ko ci vingt trois millions loolu nag taalibe yi nga xam ni ñooy njabootu maam Cheikh Thiénaba ñoo dajale seen i dërëm ak seen i déen tabaarakallaahu ba réaliser li nga xam ne mooy xam loolu nag la ñuy wax alhamdulilah rabbil alamin mat na kon nag li war comme ndigal moo ñu joxoon ñu tàmbali kon ndigal moo ñuy joxaat bu ñu yeggalee ñu jébbalewaat caabi ji sëriñ canam loolu lañu fas yéene def incha allah bii bu ñu jullee incha allahu ajjuma ba noppi sëriñ canaba dugg ñaanal njaboot gi toog ci digg pénc mi njaboot gi toog ñu seedeel àdduna li nga xam ne moom lañ doon def ginnaaw loolu mu jëf li nga xam ni moo di ñaan jooxal ak cantam bu ko defee loolu la ñuy woo ñëpp fekke si ko barki démb wala démb la am kenn ci njabootu Cheikhou ba bu ñëw ci penc mi ni dama gis maam Amary Ndaak ci gént mu taxaw ci penc mi yëkkati ñaari loxo woote ñu ñëw leen xool ni xale yi def sama rëw bi kon bëgg na ñëpp fekkee si jataay boobu ndax jataayal ngërëm la kon nag moo tax ñu ciy woote ngir ñëpp mën a taasu ci ngërëm loolu ak barke googu Baye Cheikh Euh, sëriñ Assane Seck mooy jiite jataay bi ubbi ko ñaan waaye nag kilifa yi nga xam ni ñoo jiite xadara yi di juróom-ñaari canaba yëpp bëgg nañu fekke moo tax ñuy woote bu ñu jëlee ñaari ñetti kër yi nga xam ni ñooy magi kër gi di sëriñ Modou Seck Rokhaya ñoo ngi ko ci woo ak njabootam di njabootu ma dikke ndax mooy xalifaam waaye sëriñ Ibra Seck mi nga mooy xalifa sëriñ Ibra Penda Seck waaye tamit Euh, Serigne Jibril Seck mi nga xam ne moo mag ci sët yi ñu yóbbaale mbooleem kuy njaboot waaye suñu demee ba Mbour dañuy woo Serigne Pape Seck Mourtada mu Serigne Ousmane Seck waaye suñu demee ba Kajoor woo Serigne Pape Seck Mourtada mu ma Madické waaye bu ñu demee tamit fële ca Thiabé dañuy woo Serigne Abdoul Aziz Seck mi nga xam ni bi ñuy tàmbali dem nañu fa mu kontaan ñaan joxe ndigal jël wërsëgam def ci tey liggéey bi pare yel nañu woo ko mo njabootam dem Thiénaba Gossas waa kër Baye Moussa Thiabe tabaarakallaahu waaye tamit waa kër bay Saada ca ca ca ca Canaba Gusaas waaye waa Canaba Xabbaan juróom-ñaari Canaba yëpp buñ dajee ci penc mi ak mu xaddam yi nekk ci biir kër gi incha allahu ci la ñuy jébbale caabi ji Baye Serigne Canaba mu ñaanal njaboot gi waaye bëgg nañ taalibe yëpp am chance fekkee ko ndax loolu c'est historique te loolu histoire bi tenir la moo tax ñëpp bëgg ñu teew ci occasion boobu. événement boobu ajjuma lay bii di ñëw le 7 octobre. bu buñ jullee ajjuma ba noppi la sëriñ bi di commencé cérémonie bi fii ci bâche bi nga xam ne moom lañ tàntal rasulillahi fi nañuy tàntee ngir jëwriñ rasulillahi lañ doon liggéeyal defe naa dara du hasard incha allahu ñu ngi ci woo mbokk taalibe yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala كرامته في عروس لخير خطيئة هم السلك نسما واحدا

Kossy TV cant bi leeral àdduna. activé cloche de notification boobu ñàkk cee abonné dafa wóor. su abonné da nga abonné ko ci yéen ci abonné ci dara ci lu ci ci everybody